napp ci suñuy waax géej moo xam fii ci suñu réew la moo dem ay doomu Sénégal moo xam tam ñu jóge ci bitim réew loolee nag la waa Ndar nga xam ne ku leen tudd tam ci ger Ndar tudd wàllu napp gi am ci seen gis-gis Abdou Wade seeti woon na leen waxtaan na ci ak ñoom ñu indil ci itam la xam ne nii moom moo ci doon seen taxawaay ak seen euh, seen tolluwaay ci wàllu xabaar tam ñi nga xam ne ñoo doon mbootaayu réew tugal yi ñuy wax Union européenne xam nañ ne dañuy jëflanteeg suñu lu tolloog juróom fukki at tey jii nag ñu amoon natt xayma buñ doon def liggéey boobee nga xam ne ni sémb nañ ko ñu ngi cey def xool la ca doon itam ay tolof tolof ak la ca jooy itam ñu jooyanti ko waaye xool la nga xam ne itam ci la war a gën a mën a soññi seen bopp ngir gën a mën a ñoŋal boobee liggéey ni ñu ko waxee ci njëlbeenu xabaar yi am na loo xamante ne nii daanaka kilifteef la ak itam ndogal lu nguur gi jël moo di siiwal ñoo xam ne nii kat dañoo toll ci ab lim ñu ne yéen nag yéen am sañ-saña di napp ci suñuy waaxu réew mi moo xam itam ñu doon ay doomu Sénégal yor seeni gaal ak seeni looco moo xam itam ñu nekk ci bitim réew te ñu digaale loolu ak ñoom loolee nag ba ñu ko amee mu doon lu yees loo xam ne itam dañu koy gën a mën a def ngir indi ak joyanti ku tudd waa Guet Ndar itam tudd ay nappkat Abdou Wade demoon seeti leen ne leen ni ana lan ngeen ci gis yi lañ ko tontu liste bi nga xam ne nag jëwriñ bu ñu dénk wàllum napp gi siiwal na ko ngir xamle bato yi nga xam ni ñoo war a napp ci waaxu Sénégal yi nekk na lu acteurs yi di rafetlu fii ci Saint-Louis soo jëmee ci port polonais bi féete ci hydrobase ñi fiy liggéeyee ñoom jàpp nañu ni dafay indi ab coppite bu am solo ci napp gi su ko defee sénégalais yi mën a teg bët liy xew ci géej gi. wax dëgg yàlla yàgg nañ koo soxla te mosuñu ko am kon tey bu ñu demee ba suñu ministère bi Sénégal yëpp teg seen bët xam li xem xam li xew ak li xewul woon xam ñi nga xamante ni ñoo am droit di napp ci gi ak ñi ko amul kon loolu wax dëgg yàlla liñ ci gisagun dal na suñu xel. naam nekk na jëf bu dalagum xel waaye faw yeneen i jéego tegu ci lu ci mel ni taftal ci suivi bu mucc ayib ngir lépp tegu ci yoon. mais loolu si kaw nu topp ko xam nga mën nga publier li si nii rek. gaa yi kii ni gis ko nii rek mais si kaw mu am ay si ay topp si kaw am ni ñi topp ko. xanaa kay li ñuy wax mooy ñu gën koo continuer bato yi napp yam fi nu war a yam gaal gi napp fi mu war a nappee loolu dañuy ñaan ministère bi mu toppal na ko bañ a gi loxo am ñi nga xam ne ñoo ne ci biir géej gi di contrôler bato yi ñu xam fi bato bi war a yam mu di fa yam gaal bi nga xamante ni mooy. pêche artisanale bi mu xam fi mu war a mool yi xam ne nag ñooy faral di uti jën ci Mauritanie ñoo ngi ñaan suñu autorités yi ñu rey ci ñoom si discipline bi nga xam ne tëral nañ ko ci seen biir géej. ndax boo xoolee côté Mauritanie ñun étranger ni ñu fay dundee par rapport ak yeneen yi ñëw Sénégal bokkul ñun bu ñu jugee fi dem yeneen dëkk par exemple Mauritanie yi ñu fay am si maanaam ni ñu fay dundee par rapport ak yeneen étranger bu ñëwee Sénégal ni ñuy dundee ñun bu ñu fee sanction yi ñuy jox ak daan yi ñoom dangay xool ñoom seen seen géej lañ gën a fonk ko ñun. parce que Nouadhibou gële ñu ni gaal yi di nekk ñoom dañuy sàmm seen géej bu baax a baax a baax bota bu ñu teguwul si yoon da leen di teg si yoon ba am na foo xamante ne bota yi bu ñu fa duggee di napp da leen koy tere wala la leen di jàpp saisir le te fi amul lool fii saxaari fu leen neex noonu napp fu leen neex fu leen neex géej gi amul garde bokk mu teg ay règle yoo xamante ne nit ñi daan si mën tënku ay règle yu yoo xamante ni nit ñëpp daan si mën tënk ku nekkul si ku teguwul si yoonu teg la si yoon. loolu nag ngir mu mën a nekk foo ñu càmbar liggéey bi nga xam ne gaal yi ñoo koy amal biir géej rawatina bato yu mag yi. bato li muy xëy di ko napp ngeen xamul nu mu toll gaal mën na ci napp weer du jeex suñ daxee bato bi kay mu dem gaal gi dem fa di nap napp gaal gi dina indi jën te mool bi bu indee jën mareyeur bi ci lay gis boppam. dëgg rek ñun pêcheurs yi gisuñ dara dara suñ njëriñ si géej gi ñu ngi dem nag amuñ nag lu dul géej. si lañ mën a nekk si lañ jàpp mais wax dëgg yàlla gis na suñu bopp. ba tey boo ko yem mën na gën yomb suñu parce que am na jën yoo xam dafa daan wàcc si chaque année mais jën woo mënatu koy kar wala am na jën woo xam maanaam am na heure yoo xam fa ngay dem di fi fekk jën woowu mais heure yi ba fekkee ba tey yaa ngi fa mënoo a dem parce que boo fa demee doo fekkati jën fii ci kee bu jamalaay bii nag mairie ñoo ngi toog seen suuf di xaar lu mool yi di indi tey ñoom nag ñoo ngi am yaakaar ne matuwaay yu nguur gi jël dina indi ay saafara ci tefes bi. xool tefes gi ni mu mel gisuloo benn jën óor yi daan fekk moo du jën wu ne nga gis ka waaye noo ngi nii gisuñu benn jën lool li da daan am jay am la ña la ña am uwo liggéey usine yaa ngi ne usine yu bëri tëj ndax jën fi mu ne li moo jar usine mënatuñu ko liggéey barewul dafa daan bare usine di liggéey. amul foofu. te waan naa si yàlla ni buñ président Diomaye jàppale nu si réew mii ba nu taxaw si ba bote yu si géej gii ñuy liggéey sunu mool yi gis si seen bopp ñun jigéen ñi gis suñu bopp géej gi mooy téyeer yi moo amee téyeer yi géej gi moo amee investir bi nekk si senegal yëpp mool gi moo ko yore. sama grand bi mi ngi nii yab benn oto depuis dem ba léegi mi nga yab te oto bi ndaw la te bu njëkk ba cinq minutes une temps oto bu génn mais léegi mutul nekk da ngay commencé benn oto. di xaar fii ba suba pour gaal ñëw pour mën a fees tamit day day suuxat gaa yu bari Saint-Louis nag matuwaay bu nguur gi mënti jël jëmale ko ci napp gi. ñoo ngi xaar ñu jiital ci liggéeyu bël bi. problème bël bi lañ am ah dëgg yàlla bël bi ñi ñi ngi rey suñu ay mag suñu ay papa ah bël bi nii ku la wax ne baax na waxul dëgg ndax boo xoolee gaz bi nii gaz bi bi nekk fii nii plateforme bi li ko defar defar na bël bi fii alors que fee suñu intérêt fi intérêt Sénégal yëpp. mais fii tamit nañ xalaat ne si ay doomu réew ñoo fi jaar. parce que mooy feebar mooy feebar genn feebar yi nga xam naa day damu tànk mooy bël bi mag mu fi nekkoon dee nga ndax bël bi parce que kenn ku ne maanaam boo tëmbalee sa gaal bu leen sa gaal mi ngi ñëw sax doo tranquille tant que gaal yi duggul bël matuwaay yi nga xam ne nag nguur gi jël na ko nekk na ay jéego yu am solo yoo xam ne askan bi fii ci Saint-Louis ñoo ngi koy lu li ci des nag mooy teg ci ay suivi yu am solo ngir lépp mën a jaar yoon. te tamit ñu mën a séntu njëriñ bi ci weer yi ñu jëm. jërëjëf euh, ki nga xam ne ni moo doon Abdou bu ñu jógee foofu nag dañuy ne diis dem ba ca boori Fouta ndax fa nga xam ne moo di Ndendoori te ku ko tudd itam tudd barab boo xam dafa am koom mu nekk ci suuf si tey ñu koy gas. jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pétrole bi gaz bi itam ak wàllu mine bi maanaam mbel yi nekk ci suuf si moom day daa soloon dàllam dem foofee ngir xool itam toogaay ña fa nekk ci seen liggéey xool itam jafe-jafe ya fa nekk xool la nga xam ne itam léeg-léeg Eh, ak ñàkk déggoo buy am la ci diggante njaatige yi ak ñi nga xam itam ñoom ñoo doon seeni surga ñu teewlu ci kii di Ibrahima Papi Diédhiou ma teewlu nga xam ne itam tukki ba ci jëwriñ ji amuloon la bu mu egsee si Wuroso gi ministre bi dafa jubal directement fële si dendoor yi fi nga xamante ne foofu la société Sommiva nekk waaye laataa mu egg foofu askan yu bëri nekk foofu si dendoor yi génn nañ ngir xamal ko seen kontante bi waaye tamit yaakaar bu rëy bi nga xamante ne am nañ ko si ñëwam boobulee ndaxte foofu nemmeeku nañ ñàkk déggoo bu am diggante askan yooyu ak société boobu di SOMIVA ginnaaw foofu ministre bi daal di jubal nag directement ci biir miin boobulee gis na nag fi nga xamante ne foofu la société boobu doon exploité pàcc bu njëkk ba daanaka jeex na lu des nag mooy xool naka lañu mën a yaatalaat bu baax a baax exploitation boobulee waaye jamono bi lu ñu nemmeeku mooy liggéey bi daanaka arrêté nañ ko fii léegi ñu am ab déggoo bu ñu si paree ministre bi amal na nag waxtaan bu am solo lool ak askani wii ku nekk nag xalaatam. notre lii mooy suñu dund. ndaxte suuf bi lañu am yaakaar tey soo ko jaayee téeméer junni jàpp un million ana lan la lay njëriñ ëllëg dalay sonal doo am looy dunde loolu nag la bañ. et les conséquences que cela va kii sama rakk la maa ngi à ta disposition ñu discuter. Senviva def na dara aussi jox nañ ko 66 hectares la 1 million 500 99 millions doyul ñu toog waxtaan. ministre bi nag indi na ay tontu ci ponk yu bëri. beneen bi. ganna bañ waxé ni souf ci état moko mom dafa am ay askan yo xam ni ñoo dund ci souf ci niñ ci dundé nak niñ ci dundé xeyna sax mënu ñuko yamal ci tol kese lolou dinaa ko léral ndax li tax mënu ñuko yamal ci kese da ngay xam ci ban askan nga nek ndax tay fi ñu nek ni kenn du wax ni ay baykat do nga fi nek ndax li ci ëpp ay sam lañu dañuy dox di sàmmi di for di lekk di dox di naan maanaam mooy li ñuy wax pâturage moo tax lii lépp dafa war a dugg en considération ci li nga xam ne bi moom la ñuy wax mais li ñu seetlu ci deuxième indemnisation bi waroon na ñëw am na problème parce que dañu sommes bunt ñepp duggu té sétu kan moy kan. Mo waral ñu nekk ci 197 hectares nous né ñaata nit ñoo impacté nous né 1800 personnes ñoo impacté. Kay mo 1800 personnes ci 197 hectares yoy di 1000 mètres carrés 1000 mètres carrés moy terrain wu 40 sur 25 loolu mën naa nekk mënta nekk. loolu nag tax na mu jël ab dogal xamle ko ñëpp. li ma bëgg wax foofu mooy je précise bien nañ ma déglu baax a baax li may wax li ma bëgg wax foofu mooy mënuñoo am 1800 impacté donc d'office bépp accord boo xam ni mën nañ ko am ci loolu dañ koy dàq parce que képp kuñ ci jox. donte mën naa am benn erreur parce que jox nañ cinquante ba noppi mais mën naa am erreur il faut tout reprendre et defar situation bi à zéro mais du tere du tere ñu wax ni hectare nangam lañ koy xayma dara yàqul ci loolu dara de mais dañoo wax ni ku ñuy yëkkati teg sa loxo nañu xam ni yow mii la teg sa loxo parce que man liste bi ma yor. gis naa tur numéro pièce d'identité gis naa dëkkuwaay adresse imprécise par le numéro de téléphone donc ça pose problème juste synthèse pour ñu def sujet mais les véritables décisions dañ yoni yónni danañ delloo lépp ci kilifa gi wax ko solution lii solution la solution la lii décision la lu mu ko ci askan nañ ñu ne dalal na bu parce que loolu la ñu euh, seetoon bëggoon depuis amuñu ko ñëw mu wax mu tranché mais décision bi moom président ci loxo président la nekk mu ne en tout cas il faut que ñu jaar ko ci yoon ñu tënk ko ci constitution. parce que constitution limu wax deug la les ressources naturelles appartiennent au peuple. phosphate bu dendori bobu danaka depuis atum 2014 la société bobu di va tàmbale exploitation bi askani fa nek ñu ne ñoom daal gisuñu seen bopp si projet boobu lee ñëw ministre Birame Souleye job danaka dundal na yaakaar askani japp jàpp nañ ni seen jafé yi nguur dina ko mëna jël en charge numu gëna gaawé jërëjëf Ibrahima bu ñu jógee foofu dañuy dem ca nga xam ne moo doon sigi coor ci bëj sàll mu Sénégal ndax foofee kilifa yi nga xam ne itam ñoo nekk ca bopp diwaan ba dañoo woote woon ndaje ngir waajtaayu tabaski gi xool itam la fay la fay soxla ci ay gàtt xool itam na nañ gën a mën a yombale li nga xam ne nii moo doon gàtt yi fa war dugg si ba njëgee gën a mën a jéban ba ku nekk mën a am loo xam ne nit am arafaan lay doon ñu teewle ci Marama Bangoura ma ñu fa nekkal ni di autorité région bu Ziguinchor dañoo organiser CRD ngir waxtaan ak acteurs yi rencontre bobu sax dafa tax ba ñu euh, lal lepp lo xamantene ne war na jëm ngir euh, approvisionner li di marché bi. amna yenn matuwaay yu ñu wara jël bokk na ci euh, point de vente yi ñu fexé ba karangé am fa ci walu woowu service de sécurité yi muy gendarmerie di police ak douane jël nañ engagement conformément aux instructions de monsieur le premier ministre pour que lépp luy matuwaay ñu jël ko te wax nañ leen ni leen au plus tard le 10 juin inshallah, dispositif yi war na nekk en place pour que éleveurs yi mën a nekk ci jàmm. si kaw problème transport bi éleveurs yi waxtaanee nañu yeneen jafe-jafe lu mel ni ba aliment de bétail. li nga xamante ni waxtaanee nañ ko mooy lu jëm ci wàllu aliment de bétail bi ci wàllu woowu chaque année état dana am lu mu jël jaglel ko région yi Ziguinchor ci at mi passé malheureusement jotu ci mais waxna naa eh, directeur régional de l'élevage pour que mu préparel ma benn bataxal pour que ñu mën koo yónnee waale ministère pour que bu ñuy de ren aliment bu subventionné boobu Ziguinchor mën ci jot sen wal fi am nañ fi ay magasin de stockage ci département bu nek ci biir commune bi sax ñaar la. te ci wàllu woowu joxe nañ ay ndigal pour que magasin yooyu ñaar yëpp ñu mën leen a ubbi euh, au plus tard ci fan yi di ñëw. bokk na ci aussi li ñu waxtaanee mooy lépp lu jëm ci wàllu ndox ci wàllu courant ci wàllu woowu wax nañ ni jafe-jafe mënul am parce que ci commune Ziguinchor euh, Sen'Eau jël na dogal yokk euh, point d'eau yi. may fàttali nii ci biir euh, région bi am nañ fi ñaari point de vente yu mag benn bi mu ngi Ziguinchor muy Alwar beneen bi Bignona euh, nekk ci Château d'Eau mais aussi acteurs ya fa nekk jàpp nañ ni war nañ fa mën a ubbi benn euh, point de vente. bu ñu waxtaanee ba noppi ñii di éleveurs yi wane nañu seen mbégte te fas neen yéene indi ay xar yu doy a doy. mbégte bu mag ci toogaay bi. ndax euh, yàlla dafa ñu jagleel li ren ñu am gouverneur boo xam ne xam nañu ko bu yàgg ñu mu ñu xam ne dana suñu taxawaay gën a gën a dëgër ndax bu amee ku la jàppale rek sa taxawaay gën a dëgër euh, moo tax euh, ren incha allahu rabbi lépp loo xam ne war nañu ko soxla danañu ko mën a am ci ci kar ci wàll kattan sunu borom yëkkati nañu kaddu jëmale ko service compétent yi yëpp ngir ñu duggal seen loxo bu baax a baax ngir bile opération mu mucc ayib. jërëjëf Mariama ca fi nga xam ne ni moo doon kawlax moom eh, kilifa yi nga xam ne dem ñoo ŋànk diwaan ba dañoo woote woon ndaje ngir waajal l'examen yi bi maanaa natt gi ñuy natt xale yi ñu demee ba at mi itam cate loolu nag mu laaj waajtaay ak ndax lépp yemb na waaw ci wàllu organiser ñu teewlu ci jub CRD spécial ñu jagleel walum examen scolaire atum 2024 file ci Kaolack ñu waxtaane fi les plus programmation générale way itam résultat yi nga xamante am nañ ko ak naka lañu wara def ngir rek organiser l'examen yi acteurs yi waxtaan ci walu wi way itam wax fan lañu wara jaar mbëbët li moy fexé ba tek ndongo yi ci ay anam yu muccu ayib ngir ñu mëna a examen ci jàmm. rencontre bi daf ñu permettre ñu partager information ak attentes ak disposition yi pour que nous mën réussir sur examen avons dañu ne d' abord CFE bi ak entrant sixième à partir du 20-21 juin mais foofu tamit ñun dañu am 146 centres nous avons accueilli euh, à peu près 20127 candidats candidats Les candidats dañu les dañu wàññeeku euh, par rapport à année 2023 parce que comme dañuy am souvent ay écoles yo xamné école cycle incomplet école bi rendé am CM2 année prochaine do am CM2 kon lool mom, mom moy explication bi nous ñu avancer pour justifier baisse effectif de 2023 2024 alors euh, après CFE bi dañuy engagé examen de BFM BFM bi euh, c'est le 18 juillet avant BFM bi tamit dañuy engagé baccalauréat bi euh, le 2 juillet alors enfin bac euh, technique tamit moi, mooy mooy jiitu bac euh, enseignement général. datu examen yi nag wax nañ en tout cas nous fait ngi le travail administration territoriale en tout cas le gouverneur de ñu le préfet il fépp foo des problèmes. am problème ou bien nous sentons benn problème ñu avec nous. Communiquons avec ak sous préfet le préfet Nous ñoom ñu yëg nous avons yëg problème ñoom mën nañu seet ban saafara lañ fa war a appliquer pour ñu faj ko kon defe naa loolu la ñu waxtaan en tout cas ñu ngi souhaiter élèves yi bonne chance. gouverneur bu Kaolack nag mu jiite woon daje bi mu bokk ko kuréel bi ëmb waajuru ndongo yi ak yeneen i partenaire éducation bi ñu waxtaanee ba noppi nag xam nañu wax nañu fan lañu ñu war a jaar ngir rek ñu mën a amal examen ci ay anam yu mucc ayib bu ko defee résultat yi itam mën a baax file ci académie bu kaw Kaolack. jërëjëf Claire loolu ñu koy ñaanal mboolem dongo yi nga xam ne ni itam ñooy sàkku lijaasa yooyu. Euh, ñi nga xam ne ñoo doon euh, couleur réewu tugal yi ñuy wax union européenne dañu am bis boo xam ne ni dañ ko leen koo jagleel ñu ko doon dundal ci bis boobee nag ci la ñu sukkandiku ngir xool di nga xam ne moo doon digaale bi ñuy digaale si suñu réew nga xam ne ba ñu tàmbalee digaale lëngoo ba tey toll na ci juróomi at loolu nag mu jàpp ci wàllu courant bi jàpp ci wàllu napp gi jàpp ci wàllu mbéy mi jàpp ci wàllu tàggat bi ak yëpp ay fànn yoo xam ne nii ñoom am na si doo xam ne nii lu am solo lu dox suñu diggante ak waa kuréelu mbootaayu réew Europe yooyu ñu teew lu ci nag ka ñu yebaloon ci moom ndaje di Anis Ñaañe fukk ak juróomi réew bokk ci union européenne di kuréel gi ëmb réew Europe yi te nekk fii ci Sénégal ñoo doon waxtaane projet yi seen réew am ak réew Sénégal muy projet yu sokkee ci jàmm booloo ak déggoo ñetti ponk yi ngir gën a rataxal coopération bi ñu sekk ñuy xumbal bis bi ñu jagleel réew Europe yépp di wone seen njàmbarte ci ndimbal ak wàllu gi ñu tàmmalee ci atum 1992 ba tey nag téeméeri réew jot nañu ci fii ci Sénégal nag délégation Union européenne ràññee nañu ko ci wàllum napp gi courant geeg ndox mi njàng mi tàggat gi ak infrastructure yi lépp di ay xeetu ndimbal jaarale ko ci coopération boo xam ne ne ñëpp ci gis seen bopp bis bi ñu jagleel nag Union européenne kuréel gii ñaawlu na bu baax xale yii di jël gaal yi muy tukki gu jaarut yoon ndax ñu bëre ñàkk nañ ci seen bakkan jërëjëf Anaïs ñi nga xam ne ñoo doon waa DER/FJ doon kuréel goo xam ne itam suñum réew da koo taxawal def ay koppar itam ngir mu ci jàppale nga xam ne ñoo doon soxna yi moo xam ndaw ñi ak mboolem ñi nga xam ne itam dañoo am seeni projet seeni nas ñu am itam ñu leen ci war a dugal ci wàllu koppar ñoom day ñoo am lu ñu doon taxawu lool itam doon ci soññi ci wàllu xaralu yu yees yi ngir ñu gën cee bàyyi xel gën koo dooleel gën koo boole itam ci la nga xam ne nii moo doon seen taxawaay ba ñuy amal ndaje moomee nag Amadou jàll lañ fa yebaloon forum bi waa DRFG di amal ñu ngi ko jagleel agriculture numérique maanaam mbay mi ñu jëm koo méngale ak lii di xarala yi DRFG si nii dina yokk xarañ lu toll ci juróom fukk entreprise yu yëngu si wàllu mbay mi ay entreprise numérique ñoom tamit dinañ leen tàggat fexe ba yokk seen mën-mën suñu liggéey mooy liggéey produit halieutique la ñuy liggéey si géej gi la ñuy liggéey euh, si suñu liggéey nag Euh, dafa nasaxoon ndaxte waruwaay bi nga xam ne moom la ñuy yóbbu géej dañ ko manqué woon trop waaye par rapport DER bu mu ñëwee def ci dooleem muy wàllu gaal yi muy wàllu formation yi xam naka ngay jaayee ndaxte boo liggéeyee te jaayoo noo am sa njëriñ kon foofu par rapport dañuy wax ne DER dafa jàpp si suñu komba ba ñu gis suñu bopp am ci yokkute ba gëstu leneen yoo xam ne DER tamit leneen boobu ñuy gëstu muy yarum njéen bi moo ngi ci. xam nga man ñoomin kala bu fekkoon ne eh, ci wàllu gaal lay wax tey DRD ñoo fekk ñuy jowo gaal ah mu indi ñu avion pour mu gën a gaaw ndax tey loxo lañ doon liggéeye di liggéeyee suñ kër mu tax baaxal ñu unité de transformation ba pare ñu machine yoo xam ne ay partenaires yu bëri ñoo xam ne grande surface yi ñu ngi ñu soxla ci produire suñu suñuy tee ak suñuy café DER li muy jëf si wàllu mbay mi mooy fexe ba mbay mi gën a mucc indi ay xey ba pare bolé ci koom bu am solo loolu yeb ngir gëna mëna dëgeural a lu ñuy bay dundé tey ñëpp xam nañ ni que souveraineté alimentaire yu ñu yitteel la suñu réew yi. donc loolu pour ñu yegg ci mu gaaw il faut que ñu bolé ci li ñuy innovation bolé ci technologie bolé ci numérique. tey jii nag loolu mom am nañ ci mbégte bu bare ndax projet bi won nañu ni que c'est possible té li ci sentu ñun tamit ku melni instrument bu melni DER bi ñuy wax accompagner initiative entrepreneuriale moy nga gëna accompagner ay jeunes ay ndaw ay qui fi ci Sénégal les partenaires ñëpp tay ji dañ ci wara a parce que xam nañ ni que suñu avenir au-delà de le dire moy jëfé ko tay ji ndax mbay mi amna fi sens amna fi rôle bay dundé té lolu pour y arriver il faut aller vite et pour aller vite il faut y allier des solutions innovantes té ci lolu lañuy ñuy forum sur l'agriculture numérique bu ndakaaru dalal na ay gan yu jóge Luxembourg Bénin waaye tamit Burkina Faso weccoo xalaat yi ñu fiy amal ci diirab ñaari fan dina tax ñu am ay solution jaarale ko ci xarale yi ngir gën a mën a suxali wàllu mbay jaarale ko ci xarale yi ci réew yi nga xamante ni nii ñoo teew ci forum bi jërëjëf Amadou ci diggante Israël ak Palestine day am na ba tey daanaka réeroo gi ma ngay gën di tar loolu moo waral sax am ñoo xam ne nii seen dañoo sol seen dàll ngir dox jàmm daje itam ci la Caire te mu nekk ci Misra ngir ñu mën a seet nan la indee itam ndox mu sedd ci diggante ñaari réew yooyu Israël nag jamono yee ma ngay tëkku ne dina dal ci kaw Palestine ca Rafa loolee nag doon na loo xam ne itam mbootaayu réew Afrique itam ñàkk nañ koo rafetlu ba itam artur ñi nga xam ne ñoo doon ñay yëngu foofee ngir ñu mën a indi ak dal ci seen diggante ñu teewlu ci Seydina Aline Fall armée bu Israël di wëyal ay congom nag ci band bu Gaza fële nag ca Rafa fi nga xamante ne nii nekk na euh, point passage ci digganteem ak Égypte waaye nag israel nee na dina ubbi nag benn yoon ngir nag fële ca Kerem shalon ñu mën fa amal nag lii di aide humanitaire bi foofa ca Gaza gannaaw juróom-ñaari weer yi nga xamante ne nii nag guerre bi mi ngi foofa ci diggante israel ak tamit Hamas situation bi nag nekk na lu jéggi dayo Qatar nekk dëkk boo xamante ne nii moom nag dafa jàpp ne communauté internationale faw nag mu daal di wax ak ñi nga xamante ne nii ñoo di israel ngir nag ñu dakkal ni mu gën a gaawee eh, faat bi nga xamante ne nii ñu ngi koy faat. nag doomi Palestine foofu lee euh, ca Gaza jamono ji euh, am na ay waxtaan yoo xamante ne nii nag tàmbale nañ ko fële ca Caire ca Égypte euh, ci diggante Hamas ak Israël ci teewaayu nag Qatar ak États-Unis ak tamit Égypte ñi nga xamante ne nii ñoom ay médiateur lañ ngir nag ñu mën a amal dakk li nga xamante ne nii moo di nag xeex bi foofu lee ca nag région bi. Euh, ci bés yu weesu nag États-Unis ñoom dañoo téye livraison cargaison bombe bi nga xamante ne war nañ ko jébal Israël ndaxte euh, ñoom dañoo jàpp ne offensive bi nga xamante ne ni Israël nag nee na dina ko amal ca Rafa ca Gaza euh, nekk na loo xamante ne nii nag ñoom ànduñu ci ci loolu sax Russie tamit daal dina woo communauté internationale ngir nag ñu fexe ba nga xamante ne nii lii di droit international ñu respecte ko ONU daal di natt ne lu tollook juróom fukki junni nit jamono ji dem nañu génn Rafa euh, ci nag euh, ñaari fan yu weesu euh, gannaaw bi nga xamante ne ni armée bu Israël joxe na ordre nag ne ñoom faw ñu jóge nag ca bërëb boobu boobule. jërëjëf Seydina ci wàllu tàggee yaram rawatina wàllu football am na loo xam ne ni itam moom la duwaan doon jogante niki démb ak waa APR bu Rwanda ci wàllu basket. ñoom nag waa duwaan dañ cee am ab jël ndax waa Rwanda ñoo am juróom-benn fukk ak juróom-benn waa douane am juróom-benn fukk ak benn loolee nag muy ñaareelu jël boo xam ne ni duwaan am na ko mel ni nag day indi ay jafe-jafe ci paas ba ñuy sàkk ngir mën a wëyal seen jongante yooyu ñu teewlu ci Fatoumata Sabane AS Douane la jaat ci kanamu ñi nga xamni ñoy armée patriotique bu Rwanda 66 61 mu doon défaite bo xamni dina tax ñi nga xamni ñoy gablu yi mbir compliqué ci li nga xamni moy compétition bi. pourtant ndoxteelu match bi ñoom wa Douane ñoo gagné premier carton bi ci 17 à 11. ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak Noël Obadia di waa Rwanda nag ñoom dañoo gën a taxaw rek ci wàllu défense bi ba tax ñu téye li nga xam ni mooy sénégalais yi ba ñuy dem nag ci jeexitalu deuxième carton bi benn point rek moo nekk seen diggante douane am 27 ñoom ñu am vingt 26. bi ñu demee ci noppalu bi ba dellu si ñi nga xam ni ñooy gablu yi nag jéem nañoo tey match bi waaye nag mu jafe lool ndax ñi nga xam ni ñooy waar Rwanda dañoo gënoon a am agressivité ci li nga xam ni mooy attaque bi ba tax sax ñu daal di changer la nga xam ni mooy score bi ñoom ñu am 46 waa douane am 42. mu doon nag match bu metti ci jeexital bi pour ñi nga xam ni ñoom la Pape géey di tàggat Mike na sax jot naa égalise ndax nag ñi ngi sentiroon njàqare bi ci ñaari côté yépp ndax bi match bi desee cinq minutes ku ci nekk ci ñoom am nga juróom fukki ak benn match bi nag ci bi muy waaj a jeex pression bu bari feeñ na ci ba tax nag ñi nga xam ne ñooy waxale Rwanda yi nag ñoo ko mujjee rek daa jël ci 5 points d'écart

lii di jongante bi nag dinañ ko rek yeggali ba tax nag waa AS Douane moom dese na leen yeneen ñetti jongante suñu bëggee am la nga xam ni mooy ticket bi leen di qualifié. jërëjëf Fatoumata ci wàll football doomu senegal bi ñuy wax Fary fay dañu ko tab mu nekk kilifa ga jiite club bi nga xam ne moo nekk Boavista te mu nekk ca euh, Portugal mu nekk club euh, division 1 foofee ca Portugal. moom Fary Faye nag doon na koo xam ne nii ci bu ñuy xaale fàttalikoo sax Coupe d'Afrique ci 2000 moom bokkoon na ci ñi nga xam itam ay football katu Sénégal lañu laata loolu itam doon football Casa Sport doon football itam Jeanne d'Arc moom Fary Faye nekkoon directeur sportif foofee ci Boavista laata muy nekk itam ka ñu